Mesdames, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes, l'heure est grave. Il s'agit d'un tournant extrêmement important pour le devenir et l'avenir de notre cher peuple. toutes les candidatures les plus fantaisistes, les plus téméraires seront enregistrées. Et naturellement, des experts en propagande vont occuper l'espace médiatique pour faire un lynchage de cerveau pour manipuler les consciences pour l'élection de candidats aventuriers, milliardaires, corrompus, terroristes, salafiste voire rebelle notre pays doit rester un et indivisible depuis plusieurs années le Sénégal est menacé le Mali est déjà agressé Le Burkina est agressé. Le Niger, le Nigeria, Boko Haram. Tous les États africains sont en danger. Autour de nous, la Guinée, le Mali, le Burkina sont dirigés par des régimes militaires. chez nous de soi-disant politiciens ont voulu appeler l'armée au pouvoir, ont tout fait pour diviser nos forces de défense. Des leaders sont allés jusqu'à dire que les militaires qui sont allés au Mali ont été en mission sur ordre de la France. Nous avons vu la réaction musclée des hauts gradés et même d'un ancien chef d'état-major général, Semga, le général Sec, grand patriote. S'il vous plaît, ceux qui veulent faire une autre conférence de presse, dans la même conférence de presse, un peu de respect, s'il vous plaît, pour vos confrères. Aucun sabotage ne sera toléré ici. Aucune infiltration ne sera acceptée. Je vous jure, je connais les as, les experts en sabotage. Parce que Boudoul Nyom du Keren, Ici, il n'y aura pas de garça garça. Ici, il n'y aura pas de menace. amul cooki fin cooki final fii jàmm rek fi am ñun jàmm lañ xam ce Sénégal de Senghor ce Sénégal de la Teranga avec les lions de la Teranga Sénégal jàmm rek fi xaj pas ay cooki ay rayante ay gatsa gatsa Non, ces gens-là, c'est des marginaux. Je disais donc que ce tournant est historique. Et mon parti, qui ne parle pas beaucoup d'air, vient de sortir un communiqué. après la réunion de son bureau politique du samedi. Élargie aux représentants des départements pour poser la candidature de l'homme du 23 juin. Nous avons la chance, contrairement aux autres, d'avoir un homme comme De Gaulle. L'homme du juin, c'est De Gaulle. Et l'homme du juin, dans le monde entier, il s'appelle El Hadji Dites-moi, dans ce pays, quel est ce leader qui s'identifie à un jour historique à qui on dédie un jour spécial, à part le leader du PTP. D'autres auraient bien voulu avoir titre l'homme du 25 juillet, du 4 avril. Il n'y en a pas. C'est le PTP à l'homme du 25 3 juin 2011. C'est pourquoi j'ai voulu la projection, quelque trois minutes, du 23 juin. xam nga fi ku ne xama koule la mën da nga ko dul nangu non gars yi ragale leen fii rek nga leen yéen ñii yeeg ilaaju ko mën mais on va dans les <laughs> médias là c'est je suis responsable de tel parti je suis président tel candidat votre leader et le leader du PTP par rapport à ce qu'ils ont fait eux deux dans ce pays-là c'est qui le meilleur Wolof Njaay mu ne bu ngeen yemalee cër am ñu gedd seen cër mais ku nekk xam nga ku la mën da ko dul nangu wala nga am ay fenkat nag ak ay ñu lay ñoo neex ak naa ñu di la di di la di la di la mbalaxal ci rajo ak yi naan kii koy woo war kooku lu def ci réew mi lu may rey doomu jàmbur yi tam leen dee ñuy dee montal combat wala nga ne dund leen ku dee sa yaay juraat un peu de respect pour la vie humaine ce sont des gens comme ça qu'on essaie de promouvoir partout dans les médias quand je vois les gens les défendre et les et les gens éviter le les de ces gens-là pour faire la propagande pour des tueurs des gens qui sont là pour le mortal combat Sénégal kenn du ko jox ku rey nit ñi ak ñu leen dee dund leen tekki leen dimbali leen seen waajur waaye dee leen pour man yaay kan yow yaay kan doo yeneen di ci yeneen bi laa sama turandoo sallallahu alayhi wa sallam yaay kan yaay kan pour xale di dee seen yaay di juraat yow yaay kan j'ai mal Quand je vois des fumiers, des poltrons, des vauriens supporter un discours pareil, ayant peur de l'homme qui menace, dont la vie politique s'identifie aux menaces, les menaces, les menaces. dinaa ko rey jusqu'à menacer le chef de l'État président Macky Sall dinaa ko rey wala mu mais quel est discours de rey rey rey rey dund man dund yow dund dund dund danaa leen dundal ngeen lekk ba suur naan ba mandi am liggéey waaye dee leen reyante leen xeex leen xeex leen cooki leen kii loolu mooy lan tàppe di ne pat ni muut yambar ba bëgg a dee yambar xaw ma kon Sénégal Sénégal de la joon Ngoné Latyr Diop de Alboury Ndiaye de Fodé Diouf mon grand-père dernier roi du Saloum le père de mon père c'est le dernier roi du Saloum ñun dañu am ay valeur doo jógee ci àll ba rek ñëw dañu napp ñun kenn on est innappable kenn mu ñu napp on va avoir un sang royal et se laisser intimider quand même on ne pas un roi dañ la koy waxal waaye nekkuloo ko kon El Hadj Diouf tax mu ñeme ba ñeme damaa ñeme li ma doon laa nekk rek yëgul lu ma ko sax sama yaram waaye nag <laughs> kenn du ma napp de ku ñu ku nangu ñu napp sa affaire la sa jabar jéppi na la say doom senegal nañ la yi am leen fit waay Sénégal yi am leen jom waay nañu ànd xam ne réewu Cheikh Ahmad Bamba cey waay réew Alaaji Malick réew Baye Niass suma mbokk Kaolack réew Limaamu Laay réew bu Kunta ci jàngu bi ba Popenguine waaw réew moomu benn xale dina ñëw bëggul Sénégal naan day def mone locale bu gañee dëkkam ana monnaie ba kàcc rek xale boobu fen na ba nëb yaram bi mooy mooy dox ci fen mooy dox ci yaram bi di taxawaalu ci yaram lu mu la wax incapable de dire la vérité mais gars yi la législation où est la monnaie <laughs> parce que bëggul Sénégal foofu la bëgg dee na monnaie locale du monnaie nationale de ana monnaie locale ba sax fen rek kàcc rek naxee mbaay rek waaw ci kaw fen la ñu mën Sénégal la même personne ma so yàgg ci moom dama ñëw après sama programme pour wan leen kooku moom mbokkul ndax fenkat di ko jox dëkk fii la taxaw ne mag Sall am na droit troisième mandat moog Barthélémy Dias def naa conférence de presse Café de Rome mu ne leen ñoom bu ñuy wax waaye depuis ñaari at lu ñu campagne toute la campagne de ces éléments là c' est Macky ne fera pas un troisième mandat s'il veut la paix dans ce pays là mais ñi kan la yàpp a droit à un troisième mandat ensuite vous battez campagne pour dire Macky ne pas se présenter pour un troisième mandat pendant ce temps là u du ma seen nawle pendant ce temps là de tout temps c'est l'ami de Macky Sall parce que c'est un homme de vérité qui disait à son ami doo fi def troisième mandat si jomage donne je permets à la presse de me dire maître vous mentez j'étais constant au de me, rendre hommage à travers les émissions de télé et de radio personne ne m'a rendu hommage au moment où tout le monde disait président F24 oh, on va faire d'angam campagne pour qu'il n'y ait pas troisième mandat moi je dis à mon ami vous êtes mon ami mais vous n'avez pas droit ne ferait pas un troisième mandat est-ce que je l'ai pas dit gars yi waaye kenn du ci du ko répété ñaane ngeen koo wax Sénégal yi dañuy ñaan léegi wala parce que bu dañ may jox pouvoir ndax ferkat yi waxoon ne am na ci droit ba yàgg bi campagne wax amul ci droit la ñuy teg naan ñooñu am doo ko fi defee de et ferkat la dañuy reyante am na ci droit man de tout temps yaay sama xarit waaye doo ko fi defee wala ñu ne pourtant il a judé il a le mérite d'être l'ami de Macky Sall et d'avoir toujours dit qu'il n'acceptera pas un troisième mandat waaye du benn média booy dem dégg ñu wax ne El Hadj Diouf waxoon na fi lii pourtant ak am fit pourtant ak fulla pourtant lu mu ànd ànd ak yow dëgg da la koy wax waaye ku ko wax da nga koy valoriser te ci télé yi dañu côté télé de ne am na koo faral rajo bu ne am na koo faral ti te boo sañoon kooku mooy nekk président fekk kooku sax yemuma ci ci wee mais dañ may nëbbal samay jaar-jaar ak samay jëf yu am valeur teg fi jëfi fenkat yi warkat yi reykat yi les tueurs les voleurs les menteurs les propagandistes les les populistes c'est pourquoi ma candidature est légitime pourquoi déjà à l'université de Dakar J'étais le numéro un du mouvement étudiant de Dakar. J'étais le seul, il n'y a pas de le seul étudiant, notez bien, élu par la faculté des sciences juridiques et économiques à l'époque. Maintenant, c'est juridique et politique. Avant, c'était juridique et économique. Il n'y avait pas encore de sciences politiques à l'université à l'époque. J'étais le seul étudiant élu à l'assemblée de l'université. Un seul étudiant était élu pour siéger à l'assemblée de l'université. D'abord avec le recteur Seydou Madanissi, ensuite avec feu le recteur Souleymanian. Il y avait des urnes déjà, on votait. Donc moi, déjà à l'université, les étudiants votaient pour El Hadji Diouf pour être le responsable de plusieurs milliers d'étudiants. J'étais en même temps parmi les quatre étudiants élus au conseil d'administration du COUD, Centre des œuvres universitaires de Dakar, sur toute l'étendue du territoire de l'université, faculté de médecine, de sciences, de lettres, de droit et sciences économiques. On était quatre. Kéba Dramé, Djibi Gueye, ancien ministre et El Hadji Diouf ancien ministre membre du conseil d'administration du COUD nous sommes dans les années 82 83 84 beaucoup de journalistes ici n'étaient pas encore nés certainement <laughs> après l'université et je siège en même temps à la commission d'attribution des bourses nationales à la commission d'attribution des chambres. J'étais le seul étudiant à occuper toutes ces fonctions. Donc j'étais le numéro un des étudiants. Et pourtant, il avait les Macky les Amadouba, les Ablaï Daouda, les Ablaï Baldé, qui, qui après nous et qui étaient là, derrière nous. Mais j'étais le chef. J'étais déjà le leader, avec Mohamed Bassoum, l'actuel président du Niger. Salif Diallo le feu président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso l'actuel président du Niger on faisait les grèves ensemble on tournait ensemble on dirigeait les grèves ensemble Mohamed Bazoum c'était le président de l'USND l'Union des scolaires nigériens de Dakar l'USND attention ñu am jaar Mais dans la vie associative, j'ai dirigé les Jaraaf de Dakar. J'ai gagné tous les trophées. Donc je connais les problèmes de la jeunesse, les problèmes des étudiants. Ceux qui ont fait brûler l'université, lorsqu'ils étaient étudiants, ils faisaient partie des cercles des Zébats de Rahman.